en secrétaire général ah vice-présidente mooy Adja Nogoy Mbub xam na ne ñàkkul dafa am ngant moo tax teewul waaye teewal nañ ko kon tabaarakallahu sans plus tarder dañuy euh, avancer ndax guddi gaa ngi dem dañuy rek présenter thème bi di waxtaanu cosaan wuuteeg ñaari cosaan yi muy cosaanu bi am ñun ci Afrique ak cosaan ak nekkin wala dundin bi ñu fekk ci réew mi ñu gën koo tënk ci wàllu culture mu doon li nga xamante ne ñun moom la ñu jàngee ci réew mi indi ak li ñu fekk ci dëkk bi ñun naka lañ ciy dundee ak suñuy njaboot naka lañuy dundee ci dëkk bi donc kan moo ñu koy présenté di maam Kani Diop doon koo xamante ne mu ngi jàng ci réew mi euh, di def PhD am ci Montclair University doon koo xamante ne kuy ambassadrice la kuy xeex la kuy gëstu la ci wàllu ñaari différence culture yooyu ak suñu doom yi bu ñu ñëwee fii yan possibilité la ñu mën a am pour gën a mën a intégré wu par rapport ak société bi te du yàq dara ci li nga xamante ne moom la ñu jëlee Afrique donc du ma ci sori du ma ci xuus foofu laay yemandi may ko moom mu ñëw incha allah euh, présenter li nga xamante ne moom la gëstu bu ko defee ñu mën koo partager comme ay borom njaboot.